الحمد لله الذي منا طلع نصيحة لكل من له الأداب من ندين لا بيرنتي بول خيسة بول إنيان noonoonteey déglul ma wax la na limaamu toftale laa biir ci diineem ak na mu ko laa biir ci yàlla ak rasuululaayi ak téereb yàlla baak ibaadulaayi ginnaaw salaa biiru ci kilifa yàlla tegal julit ña loolu mooy la sellaaw laa ci yàlla mooy nga xam am naa weetal këgëm ay ndogalam lii wóor naa bir ci yonentam bi mooy nga gëm ne yàlla ko yónni ci wu nitam te xam ne ku yàlla yónni boole ko kéemaan yaay yay daaral yónnen ba ca mboolem gox yaa معجزات يوي لكون في الله موتاف مخم la, صلو في الله ngay jëfe su naam te digal ka nit ñaa ci kuy nangum digal ci booleem nit ñaa laa biir ci téere ba nu naan Qur'aana mooy nga xam ne yàlla moo wàcce Qur'aana ci xayru naas ngir xamal jaamam yaa atteem ya ak dogal ya ak sañ ngay jàng téere ba tey seet maanaaya tey jéeme defel ndigal ya caayam yaaw te nga wattu mbooleem lu muy bañ ci furxaan te ngay digal loolu ci mbooleem ixwaan la biir ci fei diine mooy nga di leen dimbali tey booleeg yéene ci lépp lu ñuy aajowoo fi diine te nga di leen toppa fi amri diine bul جعلوك سورة النساء صدق له ساقب الألاي لا يبير جبال مسلمين صاحبين موي قدلن صب كما قال النبي المؤمن يقب المؤمن كما يحب نفسه يورنا معاو المؤمن يحب المؤمن كما يحب نفسه nafso te lii day war na maaw looloo waral may waxtaan dak yéeney ci leen di tekkin yu di war fil xiini ci jàmmalaay ngir moo di teenu bi yàllaay képp kuy sàkkum ngëneel fa yàlla kuy rootaan ak bàyyi ne jublu foofa baat baa di teggin yow muy àndal foofa seetal mbiram ci aw turam bul fàtte aafiyatal ilaahi bul werante mooy jàmm yàlla ci mi def yeewu leen xool na limaamu waxe woon moo di yamin nee woon na penk ak soog yamin si leneen xeewal yi sax na fi bu leen seeti feneen neewoon na penku ak sow ak si maa dina nu ñëw na ngeen leen seenoo moo xam ñu ñëw gëm mbaa ñuy seet si leneen xisaab nabi bu leen seeti feneen te boobu sow danu daanoo raay ni ak nawetaani jublu fil buldaani ci leen na ci waxtu ñu ngay jublu kajoor am njàmbur ak dara gi waaloo ki jàmmalaay ba tey xeewal yaa sax na ci saw mbooleem xeet yi seet si tubaab yi ak arab yi ñépp jot